wasalaatu wasalaamu ala mabuusil hidayati wa rahma naasiri lxaqi wa naasiqi zulma munqizi lbashariyati min barafini lwayli walghumma allazi balaga risalata wa adda alamanata wa nasaxa alumma wa tarakaha ala mahajati lbaydaa layluha kannahaariha la yazigu anha ila halikun wa ala alihi wa ashabihi gurri almuhajjalin wa shummi almubajjalin مشاهدي الأوفياء من تلفزتكم المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحية الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen waaye itam leen ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm salaam sutura àdduna ak alaxira yal na yàlla doole ñu ko defal nuyu mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi nuyu leen ñaanal leen ñoom itam ñu yàgg fi lool te wér yàlla bàyyi leen fi yàgg fi lool te wér nuyu borom réew mi di président de la république moom itam yàlla dolli ko dëgëral nuyu bu baax a baax a baax a baax borom kër gi di Seyid Alhaaji Youssou Ndour ak groupe waa groupe Futurs nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax sunuy wayjur ñoom itam ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér mbokk mi noonu nuy soppee Seydina Mouhamed yi nga xam ne ñu ngi toog jàkkaarloog télévision Futurs Médias di xaar seen émission bu mag bi di siira ndax seen cofeel ci Seydina Mouhamed gën a dolliku ndax cofeel gi ñu am ci rasulullahi alayhi salatu wasalaam nu ngi leen di ñaanal yal na yàlla defar suñu mbiru adduna waaye itam yàlla defar suñu mbiru alaxira yàlla musal ñu ci musiba ak balaa kasara gàttu fan déggu ñaaw deewu mbetteel gàttu sa gàcce yàlla nañ ci yàlla musal ñaan li suñu bàyyi alxaaji saarix aan yàlla gën a bàyyi mu ànd ak wér mooy wax ni yàlla bu nu xiif xiifu neen yàlla bu nu mar maru neen yàlla bu nu sonn coonob neen euh, yal na yàlla sunu koor ci daraja yi rasulullahi Haaj Malick maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara. waaleykum salaam wa rahmatullahi nuyu di la ziyaar bu baax. di nuyu mboolem téléspectateur TFM yi ci biir ak yi ci biti réew yëpp di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla na doon jaamu yàlla te doon ngërëmu yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan lépp luñ fi wax rek yàlla na doon njëriñ ci askan wi incha allahu taala jërëjëf. jërëjëf Haj Malick na doon njëriñ ci askan wi ndax kat waxoon naa la ni la. rasulullahi kat Haj malik fii yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a kudul ku dul yow. fii yaa ngi toog fu nu koy waxtaanee yaa gën a tedd kudul dul yow. fii ak yaa ngi déglu ay mbiri Seydina Muhammad yaa ëpp leer ku dul yow ndax bu fekkee amuloo barke. góor gi nee na bëggal Seydina Muhammad yàlla yàlla dina la ko jox bu fekkee amoo yërmande nee na bëggal Seydina Muhammad yàlla ci boppam mooy def ci sa xol yërmande mu ni bu fekkee amoo sécurité nee na bëggal yàlla ci boppam euh, mooy sa wéeruwaay mu bu fekkee amuloo leer nee na bëggal Seydina Muhammad yàlla ci boppam moo lay woddi ay mbalaani leer koo xam ne dafa rafle woon leer amuloo leer nee na bu bëggee Seydina Muhammad yàlla woddu la mbalaani leer bon alxaaj Mouhamadul Mansour waxoon ni mahabbatuhu yumnun mu ni mahabbatuhu bëgg sidina Muhammad yumnun barke la mu ni mahabbatuhu bëgg sidina Muhammad rahmatun yërmande la mu ni mahabbatuhu bëgg sidina Muhammad am nun sécurité la waaye bi gën a neex mooy watak suu dañuy waddu man képp koo xam ni kaana nekk na aariya di aj rafle minal anwaari ci ay leer Haaj Malik nee na bu fekkee danga rafle leer amuloo leer nga bëgg leer nee na bëggal sidina Muhammad yàlla ci boppam moo lay woddu ay mbalaani leer mhm. yàllaa lay wodd ay mbalaani leer kon xaaj maa ñu ngi ci mucjisa rasul alayhi salaatu wa salaam ba tey sallallahu alayhi wa sallam waaye waxoon naa la ni la kéemtaanam yi nag moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam def na ko am ñu tub dugg ci lislaam alquran jii nga xam ne mooy mu xaalida bi mu ñëwee ci arab ya li leen jommal mooy musuñu dégg kàddu gu ni neexee musuñu dégg gu nu ñu yëg ni kii kat boo ci jàppee jub boo ci jàppee gindiku moom alquranul karim alquran nag nekk wax joo xam ni waxi borom bi subhanahu wa taala la amul mbóorontu moom alquran du ay way moom alquran du rajaz moom alquran noo nee la saay saay yu màkka yéegoon ni lii kat xam ñu lu xew moom ibn abdullah mii kat ah jàngul de waaye wax na lu ñu jommal nag wax nu lañu jommal waaye la leen gën a jommal bari na ci ñoom waaw la leen gën a jommal bari na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam démb nag wax naa la ci mujiza ya waaye Haj Malik mhm. dafa am ku ma woo mhm. ni ma yëg naa bi ngay wax ñaan googu ñaan googu rasulullah yi waxoon silmaxa ba sallallahu alayhi maa ngi ñaan ku silmaxa na nga déglu lii may wax nga ànd ci ak man benn par benn mhm. su ma noppee yal na yàlla muri say yàlla na nga xool soo musul gis yàlla na nga gis maa ngi koy ñaan borom bi subhanahu wa taala tinu ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah Haaj Malick mm-hmm. loolu kat jar na ñaan mm-hmm. am na ñoo xam ne ba ñu juddoog léegi gisuñu Haaj Malick mm-hmm. am na ñoo xam ne ba ñu juddoog léegi gisuñu waaye maa ngi ñaan tinu borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ni mosuñoo gis yal na yàlla muuri seen bët amiin yaa rabbal ñoom kat bu nuy seetaan télévision Futurs Médias dara dara dara du leen ci ëmp ndax cofeel gi ñu am ci rasulullah gi waaye la ñuy am rek ñoom mooy déglu doonuy déglu yenn saa yi kenn wool ne la saas maa ngi lay déglu dafa ma toll dama silmaxa waaye bu ma taalee télé bi maa ngi lay déglu ndax cofeel gi ma am ci rasulullah gi maa ngi ñaan ci daraje Seydina Muhammad yàlla mi bind jaam ñi moom leen mhm. ñi silmaxa yàlla nunu gis waaw xas Malick yaa ngi may nettali léegi rek mhm. ca makkatal mu karam waaw waa ji nga xam ne dafa dafa musul gis waaw julli bay sëlmal rek mhm. bët ya bët ya xool wallaay bët ya xool hmm? waaw loolu pap loolu doon doon doy na kéemaan waaw akbar nga wax léegi si ndaw si rek moo tax sama xel dem ci loolu hmm. waa ji daal dañ koy wane ci biir julli gi hmm. nit ñi nguufaanu ko muy jooy di yuuxu naan allahu akbar subhanallah allahu akbar subhanallah ñuy jàpp di watat di génne bi ma liiree article bi ci laa ab silmaxa la woon dafa jekki-jekki rek yàlla muri bëti ci biir julli gi allahu akbar waaw yàlla muri ci biir julli gi te mosul gis déedéet pap inna allaha yafalu maa yacha ma yacha waaw wa yafalu fi mulkihi maa yacha moom yàlla moom yàlla taala al ilahu wa jalla al xakam yàlla lu ko neex def mhm. te du rendre compte kenn moom jalla jalla wa azaka waaw ndax amul kilifa mhm. waaye nga baat la boo xamante ne bi ne koo ko wax mu mer te boo ko waxee yàlla day bég koo ko wax rek mu mer waaye boo ko boo ko waxee yàlla day kontaan ndax moom yëg na ni nguuram gi da cee nguufaanu waaw moo tax mooy def lu ko neex moo tax ku amati soxla ñaan ko yàlla. wax ak yàlla rek. wax ak yàlla waaw. yàlla ku wax ak moom soxla mu nangul la ko. Mm-hmm. waaw parce que nee na man du ma delloo ñaan. déedéet déedéet. waaw du delloo ñaan mukk. ni nangu ñaan nangu ñaan gi ni muy ñëwee ci yow nag. nga dul mm-hmm. xam na na mu doon. waaye ñaan moom yàlla du ko delloo. ni ko yàlla waxee ci alquran kutiba alaykumul qitaalu wa huwa kurhun lakum mm-hmm. asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum mm-hmm. wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum allahu akbar nee na léeg-léeg nga bëgg dara topp ci yàlla di ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan gisoo ko mm-hmm. day fekk muy sa malheur muy sa malheur muy sa malheur bu ñëwee rek nga dee allahu akbar wala bu ñëwee nga am dog-dog bu rëy boo xam ne bëggoo ko woon yàlla mm. changé la ko defal la ko lu baax barakallah léeg-léeg nga bëgg tamit lu bon nga ngay daw lu bon fekk mooy sa bonheur bu ñëwee rek yàlla ubbi porte yi. Mhm. jërëjëf. barakallahu haj Malick. Mhm. kon yàlla yàlla ubbi suñuy bunt amin ya rabbal alamin moom yàlla ñu ñaan ko mu defar suñu mbiru adduna amin ya rabbal defar suñu mbiru alaxira amin ya rabbal alamin la ma la waxoon démb mhm. an Usman ibnu Hanifin radiallahu anhu anna rajulan ama xaala ya rasulallahi udu la udu llaha lii an yakshifa an basari fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam in taliq fa tawadda suma salli rakaatayni waaw waaw Ousmane ibn Ousmane ibn Hanifin mooy nettali nee na benn góor goo xam ne silmaxa la dafa ñëw ba ci Sayyidina Muhammad nee na njool Makka ngi toog ak jekk waa taar wa rasul a ngi toog ak yiwam nga mu ni mi ngi fekk Sayyidina Muhammad toog gën a baax lu yàlla bind waaye gën a mën njaboot ñëpp moom rasulu alayhi salatu wasalaam Ousmane ibn Hanif Hanifin nee na waa ji ñëw ne ko asalaamu aleyka ya rasulallahi njool Makka fay ko mu ne li ma bëgg mooy nga ñaanal ma sa boroom ci ma wuñ ñi samay bët yi ndax bi ma juddoogu léegi xoolu ma fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na sayyidina Muhammad ci boppam wax ko ni ko intaliq fa tawadda su ma salli rakaatayni mu ne ko du jugal boo yàlla jugal nga dem jàpp soo jàppee nga julli ñaari rakkaa mm-hmm. soo jullee ñaari rakkaa nag waxal lii yow silmaxa bi waxal lii est-ce que waa jàpp mm-hmm. julli ñaari rakka mm-hmm. su ma nabi ne ko nga wax lii neelu allahumma inni asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammadin nabiyi rahmati ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika an yakshifa an basari allahumma safihu fiya allahu akbar allahu akbar oho lii la ko yonent bi wax loo ñu waxaat ko allahumma mhm. inni mhm. as'aluka mhm. wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammadin nabiyi rahmati ya muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika an yakshifa an basari allahumma shafihu fiya fa maa xaamal xaw mu an min majalisihim illa wa raja ar rajulu waxat ba absara foofa rek Haj Malik mhm. be mbooloo ma fa toogoon kenn jugul lu dul ni gis nañu waaja yàlla delloo ko ay bëtam mhm. yàlla jox ko ay bëtam mu xool dal di gis loolu nag si Muhammad alayhi salaatu wasalaam bokk na ci ay mucjisa yoo xam ni yonent bi def na ko maa ngi ñaan képp ku musul na nga xool ñi ñi silmaxa dab yàlla na yàlla yàlla yàlla euh, saafara leen ba ñu mujjaat ba ñu mujjaat di xool ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw waaye am na ñoo xam ne silmaxa moo leen neex ndax ñu bañ a gisati bàkkaar allahu akbar ñoo xam ne silmaxa gëñu silmaxa mhm. sant yàlla mhm. gërëm ci borom bi subhanahu wa taala mhm. waaw ndax ñu bañ a gisati bàkkaar bañ a nekk ci nekkati ci lu bon di wax lu bon. Ah. ngir jaamu yàlla rek. pap suñu réew mi gis naa fi kilifa diine bu mag bu yàlla muur ay bëtam mu silmaxa mhm. doom yi di inquiété wu am lu ñu leen metti ndax seen papa li mu daan gis te gisatul. Mhm. góor gi na leen silmaxa bii ma def bi ma yàlla def neex na ma ngir ñaar bu njëkk bi lii leen lii moo neex yàlla ci man yàlla lii yoo ko neex ci man mu muur samay bët. Mhm. benn ñaareel bi yàlla mu dindil na ma tey bàkkaaru gis. ndax bu day def bàkkaar kullil muminina yaghuddu min absaarihim ah. tey loolu dañ naa ci kon maa ngi koy sante yàlla allahu akbar mu delloo si waat njaboot gi nag njaboot seen xel dalaat tabaarakallah maa ngi koy sante yàlla ndax yàlla lu mun a mu daa war wallahi te lu mu yeggale daa jot te lu jot yomb wallahi bu sa bëgg-bëgg teewee bëgg-bëgg yàlla teew mhm. da ngay bàyyi sa bëgg-bëgg topp bëgg-bëgg yàlla mhm. xam ne bu du woon bëgg-bëgg yàlla doo fi toog ba am bëgg-bëgg bàyyi bi saaxu yal na yàlla yokku leeram mhm. moo daan wax mi mhm. nit ku ne mhm. ni nga bëgg mel gënul ci yow mu ne ni nga melandee gënandi ci yow te kii la melal ni nga mel moo la gën a xam sa bopp ëpp la yërmande tamit borom bi subhanahu wa taala masha allah kon xaaj malik achatul mazmumatu mooy xar ba ñu poisonné woon poisonné ko ca xare xaybar fii gazwati xaybara ahdat zeynab bintu xaaris al yahudiya imraatu salaam ibni mishkamin rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam shaatan mashwiyatan qad samatha wa saalat ayu lahmi ahabu ilayhi fa xaalu hmm. alziraau fa aktharat min asummi fi ziraai falama ntaha min ziraiha axbarahu ziraau bi annahu masmumun falafada al akl uklata uh, summa xaala hmm. ijmau ijmau lii man hahuna min alyahudi fa jamau lahu fa qaala lahu hal antum sadiqiya an cheyin ida saaltukum anhu qaalu naam qaala ajaaltum fi hadihi shaati summan qaalu naam qaala fama hamalakum ala dalika qaalu aratna in kunta kadiban istaraxna minka wa in kunta nabiyan lam yadurruka laa ilaha am nga kii wax bu jëriñ na waaw zeynab bintu xaaris mhm. yahut la woon mhm. dëkkoon xaybar mhm. te Xaaj Maalik wax naa la Xaybar xeex la woon boo xam ni xeex bu jéggi dayo la woon xeex la woon boo xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam midin la départ ànd ak saxaaba ya bi ñu demee Xaybar yahud yu bon a dëkkoon Xaybar waaye waa Xaybar yonent bi yónni woon na leen lettre woo leen ñu lànk Xaybar fa la giléem nga départ woon wala naa fas ñëw ba ci rasulullah di wax ak moom sallallahu alayhi wa sallam ni ko ma di wuuma moom xaybar laa bàyyi ko du ma jox ma lekk fas laa mbaa giléem laa du ma jox ma naan dafa may sëf lu diis sonn ma xencu la yëg mi yaa ngi fi yaa rasulallah yi pour nga wax kooka mu mu bàyyi li muy teg duru kër yi bàyyi ma yi njool maa ko bind lettre ñaar luñ wax yónnee xaybar ke moom giléem nga mbaa fas wa wax waa mag xaybar ni leen bàyyi leen yu caaxaan yi nga mbon ngi ngeen nekkee te ngeen wàññeeku wëlbatiku mal borom bi subhanahu wa taala ko moom ni ko soo bëggee ñuy fonk suñu juru kër yi euh, euh, mala yi li ñu bëgg mooy yónnee ñu bopp Aliyun bopp Seydina Ali te nga dagg cër benn cër ci cëru Faatimata bintu Rasul yónnee ñu ko jol maaka nag nit ñuy jàkkaarloo ñoom jot na ca la jol maaka waaj yàlla waxoon na ko ne ko yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kufaara wal munaafiqiina Seydina Muhammad xam nga lu xewa ñii boo leen bàyyi àdduna bi yàqu demal jihaat ak ñoom yool maaka départ dem xaybar bi mu demee xaybar moom hmm. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam nga ci yitteem ju kawe ga ci personnalité am nga waaye waa xaybar Haj Malik dañu hmm. xamoon doxalinu xare waaw dañu xamoon doxalinu xare hmm. mën mbiru xare ñoom waa xaybar njol màkk taxaw ci buntu dëkk bi waa Xaybar yëg ni waa kër Sidina Muhammad a nga ci buntu dëkk bi ñoom la ñu wax mooy bu ñu génn nañu làqatu ci sunu camp yi ba seen lekk jeex amatuñu lu ñu lekk ba ñu loof lu ñu am kattan ñu door a génn xeex ak faa faagaagal leen hmm. njol màkk comme que stratégie xare doxalinu xare moo ko gën a xam ñëpp moom rasulullah ki hmm. bi mu toogee benn fan ñaar génnuñu dafa ni ñoom lu ñuy dundee ñu wax leen tàndarma Sidina Muhammad ne saxaaba yi gor leen seen garabu tàndarma yi ñuy gor garab ya di gor garab ya di gor garab ya ba gor ñetti téeméeri garabu tàndarma am ku ne ci ñoom ni ñii bu ñu leen bàyyee daa daañu bekkoor waa xaybar tàmbalee génn nag ña nga doon làqatu ci camp bu ñu wax xisnu nataab mhm. ak xisnu siqe ak xisnu sawiif foofu lañ doon làqatu ñoom waa xaybar njol màkk nag ku ma jox drapeau bi rek yoo indi ndam ndax mhm. waa xaybar dañuy doon jàmbaar di bon di say say bari doole ku ma jox drapeau bi doo indi ndam mu woo Muhammad bin Maslamata ni ko ëllëg naa jox drapeau bi góor goo xam ni yàlla bëgg na ko yonent bi bëgg na ko mu ne ku mu doon mu ne ko Aliyun Muhammad bin Maslama ne ko Aliyun dafa feebar munul xool bët yaa nga wax nent ba munul xool mu ne ko wal ma sidna Aliyun Aliyun ñëw ma nga jël morso muuree ko bët ya nabi ne ko dindil morso bi Aliyun dindi morso bi njool màkk ne nganam nganam nganam nganam nganam nganam tëf ca bët ya la ca weex na tàll la ca ñuul li kukk Rasul yëkkati drapeau ba jox sidna Aliyun Hajji Maalik keroog la Aliyun jàkkaarloog ma euh, euh, jàkkaarloog yëfari Xaybar xay say say xabar di faagaagal di faagaagal di faagaagal ba waa xaybar ni nañ leen dem kat jëli euh, mirhab moo ëpp doole xaybar ëpp doole ci adduna bi mhm. ñu fekk mirhab man nga ca baar bay naan sàngara ñu ñëw ni ko mirhab dimbali nu boo ñëwul daañu jeex mu ne dama doon xaar ngeen dimbali ngeen ñëw ci man ti tinu si ngeen ñëw ci man pour ma tin tin leen mirhab dem këram sol solinu xare yaayam ndap ko ne ko mirhab mu ne ko naam yaay mu ne ko bul dem damaa gént ñun ma ki lay rey dara lay sant mirhab ni ko iblis soppali ko jëmi doomu adama moom iblis ne jàmbaar ju toll ni yow ponkal mu toll ni yow dëkk bi yaakaar la nga war a dem dimbali waa dëkk bi sa yaay di la découragé loo miir xam tourné pes yaay ja mu ko may xeexi nga may découragé loo Iblis ne ko xanaa doo xeex ak kenn Mouhamed Haydara Aboubacar Haydara Omar Haydara Alioune Haydara miir xam départ jàkkaarloog Sidna Alioune Alioune ne ko yaay kan mu ne ko man tey nga dem àllaaxira du ma am ak yow trois secondes xad alimat xaybaru anni miir xabu bi xam nañ may kan sama jaasi ji musuma jàkkaarloog benn góor mukk lu dul faral ne la àllaaxira yaay kan Aliou ni ko man la sama nday tuddee gaynde ba may liir man la sama yaay tuddee gaynde ba may liir ana lazi samat nii ummi haydara ka lay si xabatin karixin man zara u fihimu bi saaxi kay la sam dara si na Aliou ak Mirhab yëkkati doon xaaf ba Aliou Mirhab poussière baa ngay jóg Aliou Mirhab dugg na ci camp bu ñu xes nu seqe dajji na porte ya téye Aliou dajji porte ba téye xar porte ba Aliou Mirhab miir ba ngay wër ci ginnaaw garab ga pour doxa ko ginnaaw Alioune dog garab ga mu wa mu wadd tourné jàkkaarloog miir xab miir xab wëlbati ko ci beneen garab pour làqatu ca Alioune ngor garab ga ba ba dun xaaf ba dal ci bopp miir xab ba ba dun xaaf ba àgg ci dëgg ci keroog la jol màkk ne bu mu laal suuf naa Seydina Alioune Zeynab mi mhm. bintu Xaaris Xaybar jaaxle am na ñëw tuub ñii daw mu jël benn xar mi suy ko poisonné xar mi poisonné ko taajal Seydina Muhammad njool màkk raxasu di yor loxo ba yàpp bi ne ko bul ma lekk laa tëkkuru nii bul ma lekk fa indi nii mas moomatun dañ maa poisonné dañ maa poisonné axbarahu ziraau bi annahu masmumun waaw mu laaj lu mu bëgg a bëgg ñu ne ko côtelette la gën a bëgg côtelette mu jël poison ba def ko ci côtelette ba yàpp bi ne ko côtelette bi ne ko bul ma lekk dañ maa poisonné dañ maa poisonné mu ni ko def lii ñu ne ko Zeynab mu woo pourquoi nga poisonné xar bi ku la ko wax mu ne ko yàpp bee ma ko wax mu ne ko dama doon xool ba xam dëgg la am du dëgg bu fekkoon yàllaa la yónni doo dee waaye bu fekkee yàlla yónni wu la nga lekk ko dee noppal ñu noppal sa bopp waaye yow la ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah waaw dama lay laaj ndax kii moroom Aysee la gënta la Aysee danaan nit danaan dee mu fëgg bàmmeel ba mu jóg mhm. moom Aysee boo silmaxa mu ray la nga xool soo mënul wax mu wax yow nga tontu mës naa dekkal xale boo xam ne fukki at ak xale ba ba karaw ga weex tàll ba jaaw waa dëkk ba ne ko yow bi ngay dee ba jaawu di mun damaa tiit damaa def ni bis pénc jot dama def ni bis pénc jot waaw may laaj kii daa fëgg bàmmeel kii ko juñ waaye xar bi ñu rey nag xar rey ko fees ko raxas ko saaf ko taajal mhm. njol màkk yàpp bi wax rasulullah kii kay su ma la waxee ni su woowee waa armeel bi ñu wuyu ko nga war koo gëm ci yoon te ala Isa moomu moo waxoon yéen waa bani Israil xam ngeen lu xewa ah? mhm. maa ngi leen di yëgal ko bégal ni li ngeen ma topp may def ay mucjisa yëpp am na ku ma ko jox te mooy rasulullah yaa bani Israil وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله لكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين yuriduuna liyutfi'uu nuura allahi bi afwaahihim wallahu mutimma nuurahu walaw kariha alkaafiruun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walaw kariha al-mushrikuun sadaqallaahu al-aziim sadaqallaahu al-aziim alquraan a ngoog yàlla ngay waxtaan ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi buur daali ne ko ma mu doo mu ni ko naam mu ni ko kaay ma nettali la wax yun tala Iisa ga de waaw waaw yun tala Iisa mooy yonent bi mujj avant ngay ñëw yow rasulillah gi waaye nag Iisa guddul fan fukki fanweeri at ak ñett rek la dund 33 ans 33 ans moom yun tala Iisa waaw mooy Jésus waxoon na ni yooyu lépp woon nañu ko jéggi mais bu ñu ko romb wa min kalaami isa alayhi salaam li qawmihi tilka al maabaratu faabaruha wala taamaruha lañu taala isa wax mu ni yooyu lépp moom nañu ko jéggi mais bu ñu ko romb mu ni yéen waa bani israil maa ngi leen di yëgal ak xamal ni yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min atawrata wa mubashiran bi rasuliyaati min baadi ismuhu ahmad yéen waa ban Israël maa ngi leen di yëgal ak a bégal ni xam ngeen lu xewa man ndawalu yàlla laa maa ngi leen di wax ni sama ginnaaw kat am na prophète buy ñëw bu dikkee na ngeen ko gëm Ahmed lay tudd tamay Muhammad rasulullahi kooku kat moom la ñu sant fii sant ko fële. waaye Xaaj Malik. mucjisa yooya Sidina Muhammad yàgg na koo def ba def ko nag xare Badar. xare Badar ca Abbas ibnu Abdul Mutalib bokkoon. abbas baayam abbas baayam mhm. abbas mi ngi tuub ginnaaw badar dañ ko jàppoon muy prisonnier ndax abbas ak abdoulaye mi jur seydina muhammad a bokk benn baay mhm. abdul mutalib ba ko jur abbas bi nu ko jàppee mhm. ak ay nawleem yuruntu bi dafa tëdd guddi dégg kuy onk an oh oh di onk mu abbas rasulullah wa sahaaba yi ne mooy onk dem leen xool ko ndaka ndaka niñ ko takkee mu dëgër ñu ñëw fekk abbas di onk ñu ñëw ne ko sa baay abbas la njool maa ne tekki leen ko te ngeen tekki mboolem ku ngeen yeew ñi ngeen yeew yëpp tekki leen leen te ngeen wax leen ku am fukki junni na ko joxe ñu bàyyi la nga ñibbi màkk na waaw dane te nga wax leen na kenn ku ne joxe fukki junni ñu bàyyi la fukki junni yooyu dañ koy def ci keesu état bi mm-hmm. abbas ñëw ñoon maa ko ko papa joxel fukki junni mun ko wuma ko mu ko mun naa nekk bor boo demee nga nga yónnee ko boobu arab dañu fonk seen kàddu mhm. mun ko wuma ko mun ko xam naa ne yoro fi dara mais denc ko kër ga ne ko yoroma dara kër ga denc ma fa dara ñoon maa ko ay papa bi ngay départ di waaj ñëw ba dara jëloo woon du tolloog ñeent fukki junni jox ko sama tante diw takk ko ci morso bu xonk ne lii dencal ma ko mun la fu ma koy denc nga ne ko dencal ma ko ci rondal gi yëkkati lal bi nga teg ko ci mu ne ku la wax lii mu ne ko ceer asamaan juróom-ñaar mu tuo daanu talal suufi juróom-ñaar mu tuo banku borom bët bi nga xam ne du gëmant du nelaw kooko ma xamal ni mm-hmm. am nga xaalis boo dénkoon sama tànta mu ne ko kon yow la yàlla yónni doom ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah lillahi yawmun mm-hmm. bihi lislaamu mustahiran mm-hmm. mustahirun wa ammuhu kaana fi infaqi za sadami yawmun ay yawmu badrin ammuhu abbas ibnu abdulmutalibin mhm. fi l infaqi bi bazl kathiri wal kathiri za sadami xirsin wa hammin wa xusnin wa dalik kaana xabla islaamihi mhm. moom moom abbas ibnu mutalibin saaxibil xawdil mawlud xaj maani waaw kon ca ngay dégg yi ne yonent bi alayhi salatu wasalaam mhm. mujizaam ay kimtaanam lottu la lottu la mbindeef yi ca nga daan dégg yi ni la waykat arab boo xoon ni ne ko laka mujizatun ajazat kullal wara laka ñeel la yow rasulillahi mujizatun ay kéemtaan yoo xam ni ajazat lottuloo na kullal wara waaw sa sa sa kéemtaan lottuloo na mindeef yëpp yow yonent bi alayhi salatu wasalaam mhm. lottuloo na mindeef yi moom moom sidina Muhammad Haj Malik te ngay déggee mhm. la faral gi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala far na ko ak moom waaye kéemtaan googu mhm. la ko may loolu lépp moom sidina Muhammad mooy yàlla dafa baaxal xol ba gis nga Haj Malik ruux ak xol. Mhm. li nga koy tudd mu gàtt noonu. Mhm. la ca nekk ci ay jagle kenn xamul lu mu toll. Xaaj Malik mhm. xol fi mu placé wu bu baaxee lépp baax. dëgg la ndax yàlla nee na fii ci man doom du fi jariñ. fii ci man alal du fi jariñ. dëgg la fii ci man li fiy jariñ mooy xol bu waaye yàlla nee na yéen kat am na ci yéen ñoo xam ni ay njàccaar ngeen yéen a ngi xool waaye seen xol moo silmaxa xamoo bët yu silmaxa moo gën xool bu silmaxa am na ñoo xam ni gisatuñu waaye seen xol leer la am na ñoo xam ne gisatuñu seen i bët muuru na waaye xool bu leer la nu am waaye yàlla ni Seydina Muhammad sa yii ma gis ñoom seen bët yi ñu ngi xool ay njàccaar la ñu di gis waaye seen xol yaa silmaxa mhm. fa innaha la taamal absar أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور sadaqallahul azim sadaqallahul azim yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi buur daal di ne ko Mamadou mu ni ko naam mu ni ko waxal ak ñoom de ñoom dey mumud mu ni ko naam munuñu munuñu la bëgg de ñoom seen xol yaa muuru seen xol yaa ci boppam moo silmaxa waaw waaw seen bët ya silmaxawul de fa innaha la taamal absaaru de déedéet walakin laakin nag boo jàngee naxu ci grammaire arab lil istidrak la walakin li fi nekk nag taamal qulubu lati fi suduri waaw waaw seen xol yi ki boppam moo muur yow Seydina Muhammad ñu ni alxalbu fi ilmi tasawuf Haj Malik foofu la ñu wax ni xol ci miiru tasawuf alxalbu kamalil gazaliyu yatlaqu li maanayni waaw waaw dafay booyal nag ci ñaari maana ahaduhuma allahmu sanawbari shakli ñu ni xol ni mu formé woo dafa mel ni ki robinet mm-hmm. almudau fi janibil aysari min asadri yàlla nag def ko ci xol ci wàllu càmmoñam mu nekk ci dënd moom xol wa fi batinihi tajwifun fiihi waxu man ba ol ñu ni xol euh, yàlla nag euh, ci biir xol moom moom borom bi subhanahu wa taala la ëmb xol këmbóot la waaye am na deret di ñuul gu ko wër moom nag mooy balluwaayu dund mu ni wax maana saani ñaareel ba nag wa alatifatu rabbaniya mooy ñeewanteeg borom bi subhanahu wa taala ruuxaniyatun sa ruux nag pour mu mën a dund il faut que sa xol baax ba noppi laha bi hada alxalbil jismaniyin taalluqu taalluqu al araadi bil ajsaami wal awsaafi bil mawsuufaati wa tilka latifatu hiya xaqiqatu l insaani ñu ne Xaaji Malik xool nag dana aju ci nit gaaral jëmm defaral sa jëmm ndax nit li nga koy gis jëmm ja normal kanam nga billi xol baa baax mm-hmm. waaye yenn saa yi nga gis koo xam ni kanam nga dafa fasu boo jàkkaarloog moom doo ko ñemee wax soxla mm-hmm. waaw xol baa bon dëgg la soxor bëggoo kenn lu nit am yéene woo ko ko lu nit am rek yéene woo ko ci mën nga dëkk di wax lu bon bëggoo kenn am victoire yow boo sañoon ñëpp am defet boo toogee sa ñu ne diw mii ak a baax mu ne ngeen ko moo diw moo non cim allahu akbar da nga am problème xol ndax xol Hajj Malik hmm. melo yi baax yaag jegle ya ci biir xol la ne waaye ñeewanteeg borom bi subhanahu wa taala sekk rek leer wa tilka latifatu euh, boobu sekk rek leer nag hiya xaqiqatul insaani dëgg dëgg doomu aadama haj malik il faut que sa xol baax ndax fa ngay ràññee ci xol al mudriki al alimi ca ngay am ca xam ne dëgg dëgg dëgg xam-xam al muqaatabi ca ngay mën a am communication sa diggante ak nit ñi mhm. pour nga mën a wax ak ñoom wax ju dal il faut que sa xol baax al mutaalabi fa la càkkute ne almusaabi fa la fay am yool fa la am mm. almuaqabi waaye ci xol ngay fexe ba yàlla mbugal la ci yàlla ci yàlla musal ñu ne yujudu an al xalbi fi kitaabillahi kalaamun kasirun mm-hmm. ah, di nga fekk ci alquranul karim ci mm-hmm. mbiri xol mm-hmm. wax ju baree bare bari ihtimaaman bi amrihi ah, yàlla yitte woo mbiri xol xaala taala yàlla ci boppam waxoon na sidina Muhammad ni ko Mamadou mu ni ko naam mu ni ko bul sonn gaa yii kat seytaane ci boppam moo leen dimbali ndax seytaane bëggul kenn baax mhm. seytaane bëggul kenn lu baax def lu baax mhm. li yajala ma yulqi seytaanu fitnatan li yajala ma yulqi seytaanu fitnatan lilladina fi qulubihim marad walqaasiyati qulubuhum وإن الظالمين لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم ngay waxtaan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi buur daali ni ko moom day seytaane mamud moo jël sa gaay yi fitnaal leen def ci seeni xol feebar waaw waaw dem moom seytaane ñu topp seytaane ba seen xol ya wow waaw wal xaasiyati xulubuhum wal xaasiyati daal di wow xulubuhum seen xol ya waaw waaw munuñ munuñ mënatuñoo tudd yàlla mënatuñoo mhm. yëg yàlla waaye loolu lépp li leen ci yitteel mooy dañu laa bañ a baña a bañ bañ mhm. waaye yow ku la bëgg ma bëgg ko ku la bañ ma bañ ko yàlla bëgg sidina Muhammad waaye ku la bëgg rek ma bëgg ko waaw ku bëgg ma bëgg ko ku bañ man yàlla ma bañ ko génne ko ci sama yërmande ah yàlla kat ko ñor kon ku bëgg ku bëgg yàlla bëgg la da ngay bëgg yonent da ngay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko wax leen ne bu ñu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulullahi qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ويغفر لكم ذنوبكم فيم. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم dégg nga yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad sallallahu wa sallam buur daali ni ko wax leen ni bu nu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulullahi waaw waxal loolu waxal loolu qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni jëla sa baaraam rek teg sa dënn ne fattabi'uni boo ko defee rek yuhbibkumullah xaaj Malik charte la ak jawaab waaw charte la ak jawaab dégg gis nga xol dañ koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmm ji boo feebaree dem hôpital ñu hospitaliser la mbaa nga naan ay garab pour wér mbaa nu pikiir la boo feebaree danga war a dem faju dëgg la gis nga jëmmi doomu aadama ni muy feebaree Hajj Malik mhm. noonu la xol di feebaree waaw ni jëmmi tey di sama bopp day metti tey de sama biir day metti sama loxo day metti tey tey yëpp mënu maa yëkkati sama yaram sama yaram be ni sa jëmm ji feebaree Hajj Malick noonu la sa xol di feebare benn waaye daf ma woo téléphone maa ngi koy jéggalu ci ni ma koy nettali waaye moo ma woo waaye du ma fàtte naa sax turam ma ne ko la béyk moom bu ma la bëgg laaj ma ne ko yàlla naa ko xam de su ko xamul rek dem laajte dem ko rek laajtewaat ko lu mu doon mu ni ma Oustaz man dama soxor Hmm? man dama soxor man dama soxor man ko ah waay sëñ bi déet waay mun ma dama yëg ni man damaa soxor dama yëg ni man yéenewu ma kenn lu baax dama yëg ni lu nit am man yéenewu ma ko ko te loolu dama bëgg mu denc man man ko waay sëñ bi soxoroo waaye boo soxoroon loolu doo ko wax mun ma billaahi dama soxor man ko déedéet sa xol dafa feebar kon da ngay faju mun fan laay de hôpital man ko déedéet xol bu feebaree dafa am lu koy faj lu koy faj ma ne ko mooy ngay saxoo kalimatu laa ilaha moom sa góor gi alxaaji abdul aziz dabaax mhm. waxoon ni zikrul ilaahi lil xulubi xuutun lil xulubi xuutun tudd yàlla xuutun dund la lil xulubi ñeel xol yi mhm. mu ni in lam taxish bi fa hiya tamut su ngeen dundalul xol yi ci tudd yàlla mhm. xol yi dañuy dee kon ahyu xulubukum bi zikrillahi dundal leen seeni xol ci tudd yàlla fii kulli waxtin ci bépp temps ci bépp waxtu yaa ibadallah yéen jaamu yàlla yi mu ni zikrul ilaahi tudd yàlla sulla mun esel la lir raax yi ñeel aji yéeg jëm fan mu ne li xadratil xayil azimil baax yi ne boo bëggee àgg ca xadratul ilaahi fa gaaya yi daje di waxtaan mm-hmm. nee na del tudd yàlla di saxoo kalimatu laa ilaha illallah di bëri looy julli ci sayyidina Muhammad boo ko defee sa xol dina baax kon Haji Malick nit kooku dafa examiner boppam mm-hmm. kon nit dafay examiner jëmmam comme ni muy ko xol dañ koy examiner maanaam dem xool dem defal sa xol bilan nga xool tëdd ba guddi wala nga dugg sa néeg tëj sa bunt vérifier sa xol bi ba xam maa Malick Dieng mii li mu am yéene naa ko ko mhm. wala yéenewu ma ko ndax mbon mi ngi ci man wala ndax soxor mi ngi ci man waaw ndax alxasadu laa yasuudu yonent bi nee na ku iñaan doo nekk sang mukk la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax moo tax yàlla ni ko ca surtu xujuraat mu mu ni ko naam mu ni ko ulaayika alladina imtaxana allahu إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادون ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم sadaqallahul azim sadaqallahul azim alquran a ngoog yàlla ngay waxtaan ak sidina Muhammad buur daal di ne ko Mamadou mu ne ko naam mu ne ko ñooñu day mooy gaañ a nga xam ni nattu nanu seen i xol nattu na allah moom yàlla seeni i xol waaw ulaayika ñooña alladina mooy gaañ a nga xam ni intaxana nattu na allahu yàlla xuluubahum seen i xol li taqwa ñeel ragal yàlla mm-hmm. ñeel ragal yàlla shahadatu taqwa nattu seen i xol seen i xol baax ndax bëgg yàlla xaj mhm. maari ci xool la ne dëgg la bëgg Seydina Muhammad ci xol la ne bëgg mag ñu baax ñi ci xool la ne mhm. li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom ci xool la ne mhm. yonent bi nee na euh, laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ngëmam du mat lu dul li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa morom ñu lifal xal bu yum taxanu kamaa yumtaxanul jasadu fal xalbu yumtaxanu kamaa yumtaxanul jasadu wa bitaali fa innahu yasqutu aw yan aw yan jaxu waaw foofa nag boo examiner sa xol ñu ni xol dañ koy examiner dañ koy defal bilan waaw fal xalbu yumtaxanu dañ koy nattu defal ko bilan examiner ko kamaa yumtaxanul jasadu comme ni ngay euh, examiner sa jëmm mhm. defal ko bilan waaw foofu fa innahu euh, wa bitaali fa innahu yasqutu aw yan jaxu foofa nag mën nga ci jàngee ni buñ ko defalee euh, bilan ba noppi mën ngaa mucc ñu ni la yow kat sa xol feebar na wala sa xol wér na tabarakallahu yal na yàlla wéral sunuy xol amiin Hajj Malick ndax ki nga xam ni moo gën lu yàlla bind rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom nag bokkul nit ñi déedéet ndax deux ans deux mois la xotti dënd ba mm-hmm. lumb bu ñuul bii nekk ci doomu aadama nga xam ni fa la soxor ne mm-hmm. fa la iñaan ne fa la iññiti ne mm-hmm. fa la iññi ñi ne foofa lumb bu ñuul boobu dañu ko dind ci xol rasulillah yi deux ans deux mois shuqa an sadrihi wa uxrija minhu mudgatan mudgatan inda gaslihi sawdaau dégg nga ma nga cee monsieur Mouhamadul Busayri nee na xar nañ dënnu Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam raxas dënn ba. lu mu bu ñuul ba ñu génne ko. est mu convaincre li mbooloo mii xam nga li leen convaincre lu ay caaxaan waay. déedéet kii bu xatoon xol. mbaa mu gaaw a mer moo tax gis nga kilifa warul gaaw a mer warul gaaw a wax. déedéet. kilifa war na looy wax mu nekk farata. dëgg la ndax borom Ahmadul Hariri nee na xal la ma salima miktaarun néew na bu muccee weju waa kon néew na bu muccee weju waa kon la borom Ahmadul Hariri wax. Mhm. ay mata say fuuni yi dañu wax ni yonent bi bu ñu jëloon xolam bu ñu ñuul loolu ne woon ci xol ba te Jibril génne ko bu ñu ko jëloon teg ko ci balance nit ñépp ñu jël seen xol. teg ko ci balance nee na bosu bosu Seydina Mouhamed Baye moo moo daf leen di war. allahu akbar mi ko dindiwul woon moo gën a baax ñëpp. dëgg la moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam. sallallahu alayhi wa sallam. moo tax lii mu am yàlla ni ko da nga baax. Mm-hmm. boo soxoroon doo ko am sa xol bu bonoon doo ko am. Mm-hmm. waaye dafa comprendre àdduna. dëgg la moo tax moo tax la ko yàlla digaloon xajma dani benn daf lay romb nga xool jëmmu jë na ko yàlla biddee nga daw topp ko beneen bi mooy da nga jëflanteeg moom jikko ya neex la jikko ya neex la nga topp ko beneen ba da nga indi woon mbon mu won la mbaax nga naa yëla yéen day daal di koy topp beneen ba daf lay woo nga lànk mu bëgg laa dimbali bëgg dimbali saw xeet maanaam xeet nga nga dëkkal saaskan askan yàlla ni ko demal xeex ak ñoom waaye daawul bëgg daaw musul toroxal kenn déedéet soxore kenn musul iñaane kenn lu nit mu sa am Seydina Muhammad yéene na la ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon Hajj Maalik ngay déggee ni pour nit pour mu mën a dund dund ko dal pour nga mën fi bàyyi koo ñu lay waxal lu baax ba ilaa yawmi tubaas sa tur du fay sa njaboot lu fa fàqi ko ñu bàyyi leen xel mooy da ngay baax da ngay baax tabaarakallah oustaz Pape da ngay baax da ngay defar sa xol mhm. oustaz Pape saxaaba yi gënoon jege Seydina Muhammad xola fi yàlla positionné xol saxaaba yi ko gënoon a jege toog ak ñoom Seydina Omar Seydina Aboubacar di waxtaan. Hmm. yonent bi bëgg a yónnee ci benn xare. am ñaari jàmbaar ñaari général yu teew ca ca ca mbooloo ma. Hmm. Aboubacar am position Seydina Omar am position. ku nekk naan na yonent bi yebal kii kii naan kii yee gën a jàmbaare kii naan kii yee gën a jàmbaare hmm. coow li commencé yàlla ci kanamu yonent bi aaya yàlla ne leen waaye xanaa gisu leen ki nekk ci seen biir laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu bil xawli ka jahri baadikum li baad bu ko defee an taxbata amaalukum jàngal ma loolu waay يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أها. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم بالله وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم yàlla ni damay bañ seeni yiw yàqu yàqu te yëgu leen ko te du ngeen ko yëg mooy sa kilifa doo bari wax ci moom mukk ci àdduna ak di werante sa kilifa toog ngay werante déedéet yàlla ni waaye yéen laa tarfa'u aswaatakum nag yéen tamit xanaa xam na gis na ki nekk seen biir lu mu doon waaw kii woyof gii mu woyof rek biir di waxtaan ak yéen waaw tax na ngeen di werante ba yuuxu ci kanamam wallahi ah non non yéen tamit bu leen ko def laa tarfa'u a fawqa sawti nabi waaw wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di an tahbata a'maalukum damay bañ seen seen yiw soppiku. wa antum seen yiw sippiku. wa antum laa tash'uruun te wa antum laa tash'uruun du ngeen yëg ni seen yiw sippiku na. wallaahi ngeen yaakaar yéen a ngi jullee ko woor defe ne am ngeen dara ci man fekk amatu leen dara ci man te yëgu leen ko. wallaahi mais loolu pour mu ñàkk am mais rek def leen def wax leen. respecté leen waa ji. jox leen ko cër waaw kii dafa baax. woyofam gii ak yiwam gii. Mhm. ak mën njabootam gii. Mhm. toog ci seen biir ngeen bëgg ko ñeme. Mhm. ah déedéet ci ay généralu guerre rek ay waaw kii dem fii kii dem fii waaw waaye rek la seen i wax nag yéen tamit waaw bi bi aaya bi wàccee nag saxaaba yi Seydina Omar ak Aboubacar ñemeetuñ wax ci kaw daanaka dañuy déeg yonent bi yàlla ne leen waxuma leen loolu de inna allazina yaxudduuna aswaatahum bi nga doon firi léegi ñu wàccee baat ba yonent bi déggatu leen inda rasulillahi yàlla nee na yéen waxoo taxoon leen may wax de ndax ulaika alladina imtaxana allahu qulubahum li taqwa yàlla nee na seen xol yi examen naa ko ba xam ne ragal yàllaa ci ne kon waxuma ak yéen dama bëgg ñëpp bàyyi ko xel rek xam ne waa ji du yéen waa ji du yéen. waaw xeexee. kon xool baab dañ koy defar. xool dañ koy examiner. dañ koy defar gis nga yàlla nee na ci alxuraan yonent bi bul sonn am na ñoo xam ne nii nga waar leen ak ngeen bañ leen a waara yam laa yuminuuna. duñ la gëm mukk mukk xam lu tax. xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishaawatun wa lahum azaabun aziim yàlla kastere seen xol yi ba dara mënatu ci dugg moo tax yàlla waxoon ko que sa suratul yaasin laqad xaqa alqawlu ala aksarihim fahum laa yuminuuna duñ la gëm ndax seen yàlla kase te seen xol yi dem nañ ba seen xol yi dañoo muur boobu dara mënatu ci dëggul yàlla ñu musal ci loolu pap yàlla ci yàlla musal amin ya rabbal alamin mi ngi noonu mhm. ngoog ñi fa demagul yàlla nañu dem amin ya rabbal alamin Haji Malick màkkaa ngoog mhm. ñi dem ba noppi yàlla nañu dellu amin fii la borom bareeru or ba juddoo mhm. fii la Seydina Muhammad juddoo mi ngi noonu xam nga ne aboo jëlin tey fa mu tëdd na gàcce de Walidul Mughira am na gàcce de Rukaanata saay saay ba am na gàcce ah waaw xaaris ibnu nadr am na gàcce aboo lahab am na gàcce de saay saay yu màkk bañoon rasulullahi njool màkk woo pour dimbali leen ñoom ñëpp boo xoolee lii yëkk ni am nañu gàcce am nañu gàcce de kaaba gaa ngoog kaaba gaa ngoog boo fa ne jàkk sa diggante ak yàlla awwala baytin wudia linnaasi la lavi bi bakkat al mubarak mi ngi noon xaaj malik waaw boo fi ñëwee yëg ni sa diggante yàlla dara doxatu fi ñëw ba fii nag di xalaat naan li ma ñaan yàlla nangu na ko nangu ko mhm. xamoo lu xew mi ngi noonu oh Hadj Malick Kaaba gaa ngoog laa sana jërëjëf du fëlal sunuy bët du fëlal sunuy bët ndax nu koy waaj soppe Sidina Muhammad yaa ngay waaj dem baytal xaraam ñaanal sunu réew dem ak del si waat ci jàmm mi ngi noonu waaw waaw waa Zéyé asalaam sama bi may àndal léegi mooy borom koli zone yële ngoog moo nga noonu waaw waaw waa ngi noonu waaw mu ngi koy nuyu Adja Fat Diagne Adja Bintu Xumma ñëpp Adja Ndey Silla waaw Zeya Salama ngoog insha allahu taala ñu demagul yàlla nañu dem ñu dem ba noppi yàlla ñu dellu waaye xaj laasana nag indil ma indil ma madinatul munawwara bu ñu paree nag ñu ubbi ligne bi tuuti waxtaan ak soppi Seydina Muhammad yi nga xam ni ñoom ñoo safoo télévision Futurs Médias insha allahu taala Haj Malick mhm. fii daal maa ngi ñaan ñi demagul yàlla ñu dem amiin yaa mi ngi noonu nag Medina ngoog allahu akbar ala sakiniha afdalu salatu oh, oh, fii lay dëkkee rabbu jaam ñi ñun bu ñu deewee fu ñu bëgg a dem aljana moom aljana ñëw ci moom fii lay dëkkee rabbu jaam fii fii lay dekke fii boo fa ñëwee rek waatal ni dugg na aljana maa bay na bay tii wa min bëri rawdatu min riyaadil janna sidina Muhammad nee na diggante sama rawdu bii ak fii ma taxaw te xutba mi ngi bokk ca jardin aljana yi haj malik allahu akbar ah waaye fii lay fii lay dekkee ramu jaam ñi fii lay dekkee ramu jaam ñi fii la ko yàlla fekkoon ni ko am na dex gu nekk biir aljana jox naa la ko am na dex goo xam ne moo gën a weex meew gën a neex lem jox naa la ko maa la ko jaxalee inna aataynaka alkawthar bismillahi arrahmani فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم boobu yahit yahuutu midin ñu ngi koy ree yéefar yaa ngi koy ree naan ko sa yàlla ji buggu la sa yàlla ji day bu la bëggoon du rey sa doom ji seen bisu feet bu mag bi ci la Ibrahima dee doomam ja tolloon ci onze mois bisu tabaski njool màkk ronkañ a génn na keroog jibril ñëw ne ko lu xew mu ne ko moom ma ronko ñi de waaye xol bi yàllaa ko moom waaye dafa metti nag jibril xam nga lu xewa suul naa roqaya suul naa umu kulsuum suul naa zeynab suul naa abdoulaye suul naa xaasim fatima ak abdoulaye ibrahima mii laa dese maria alqibti moo ko jur bisu tabaski njool maa ko sañsa ibrahima gàttandu ko feebarul boppam mettiwul tànkam mettiwul na ba yëkkati ibrahima taf ci dënd ba ibrahima seddu gu yi allahu akbar yahudi ne ko sa yàlla ji bugg la bu la bëggoon du sa doom ji seen bisu feet bu mag bii jibril ne lay jëpp ne ko yàllaa lay nuyu bàyyi nga ne yàlla ngi lay nuyu sa waay rek daan dégg. est-ce que mu yàgg ba sa xel dem ci Adama dégg ko. sallallahu alayhi wa sallam dégg ko. dégg ko koy xalaat Daawud dégg ko Souleymane ngay xalaat déggul loolu mu yàgg ba sa xel dem ci Isaa bërki dee mu dégg ko ko may xalaatal Zulkifli déggul loolu Ilyasa dégg ko Daaniyal dégg ko <laughs> Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Jibril daan ñëw ci moom nuyoog moom ne ko yàlla ngi lay nuyu yàlla ngi lay nuyu mhm. yàlla nee na inna ñun yàlla aataynaaka jaxale nañu la loolu nag laasana na ngi ko ko waxoon ci dëkk boobu di madinatul wara dëkk boobu nga xam ne dëkku leer la dëkk boobu nga xam ne dëkku barke la waaye itam dëkku xeewal la ak teraanga mi ngi noonu fii nag màkka la indil ma midin waaw waaw da ñëw màkka mu leer nañ nga dem midin mu gën a leer nag waaw hmm? ñu ni waaw lamp yi ñu taal màkka la ñu taal waaw leeru rasulullahi mooy jaxasoog lamp yi ndax xaj Malik bàyyi nga ne lu leer mi ngi leeree ci leerug Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi waaw waaw li leer lépp nuurun mubiinun ata nuural mubiina nuural mubiina waaye nag li irshadil ibaadi waaw jamian jamian rabbi allahu la sama maam Cheikh Sidil Xaji Malik leer goo xam ni waaw leer gu bir goo xam ne dikk na ngir gindi jaam ñëpp jaam ñëpp nag ñu ngi niitoo nag ci leerug Muhammadu Rasulullah gi waaw waaw mi ngi noonu Makka ngoog lamp yi leer na waaye boo àggee midin midin mooy gën a leer ndax leeru Sayyidina Muhammad mooy wëndeelu ci biir nit ñi mooy wëndeelu ci biir jaww ji allahu nuuru samawati wal ardi allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi kamishkaatin fiha misbaax almisbaaxu fi zujaaj الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم sadaqallahul azim leer gi nga xam ni moom borom bi subhanahu wa leer asamaani juróom-ñaar leeral suufi juróom-ñaar waaye xaj malik leer goo gis xool nit xàmmee ko mi ngi amee ci leeru rasulullah sallallahu alayhi ndax yàlla dina ci leeram bind leeru sayyidina Muhammad waaye looy dégg looy xalaat yàlla nga ko bind ci leeru Muhammadu Rasulullah abaana min nuurihi nuura nabi nuura nabi alamin innahu lii abaana la faccalee abaana la tibbee min nuurihi ci leeram ga nuura nabi leeru ku nu soloo ka te Muhammad alalami ka aje xam ja ay maamam mooy wax ni booy lim maam bul weesu Adnaan mhm. man jaawaza Adnaan faxat kazabahu nee rek Abdoulaye ko jur Abdul Mutalib jur ko Hashim jur ko Abdou Manaf jur ko Xusay jur ko Kilaab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Xaalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanata jur ko Xusaymata jur ko Mudrikata jur ko Ilyas jur ko Mudar jur ko Nizar jur ko Maab jur ko Adnaan jur ko jool maa kana yemal foofu kenn du moom déedéet sallallahu alayhi wa sallam kon laasana ubbi ligne bi ñu dugal nag soppay Seydina Mouhamed yi nga xam ni Hadj Malick ñu ngi safoo télévision Futurs Médias ñoom itam ànd ak nun fu nu toll nu ngi leen di mhm. nuyu di nuyu bu baax a baax a baax euh, soxna Fat Faye ma nga Amérique euh, ma nga Amérique nuyu imam imam Sène moom itam ko nuyu bu baax a baax a baax euh, maa ngi nuyu Khalifa Cissé ma nga New York di sama doomu di sama doomu bàjjan Khalifa Cissé ma nga New York ma ngi koy ziar bu baax a baax nuyu ay soxnaam nuyu Euh, sëriñ Sidi Ahmed si moom itam Babacar Ndaw soxna Faa Mbaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla yokku leen dëgëral yaayu daara alaaj bàcc ñang ñoom ñëpp ak soxnaam soxna ki ne maar Adama Ba ma nga Amérique Cheikh Tidiane Soare sama mag mhm. soxnaam Poul Mera ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax a baax waa France soppi Sidina Mohamed ya fa nekk amatuñ jàmm mhm. waa Italie waa Allemagne ñoom itam waa euh, waa àdduna bi daal àdduna bi xam nga télévision Futurs jaa dafa génn Sénégal romb Afrique. waaw waa Afrique. Mhm. waa Gabon amatuñ jàmm. waa ñoom ñoom ñëpp nag tabaraka waa ba Afrique du Sud. Mhm. ñu woote ñoom itam. Europe ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal. tabarakallah yàlla yokk ci daraja Seydina Muhammad am na ku ne ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax. tur bi naka la. Oh, ah, laase na kooku dem na. kooku dem na soppi Sidina Muhammad boobu xam naa mi ngi ñëw incha allahu taala mi ngi ñëw nu ngi koy ñaanal mu gaawaat ñëwaat léegi rek Hajj Malick waaw waaye problème bi mooy waa ji cër yi yàlla jox yëpp teewul mu ëpp ñëpp kersa doon kilifa ëpp ñëpp kersa moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaamaaleykum aleykum salaam allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi soxna si ñu lay nuyu. waaw maa ngi leen di sant maa ngi leen di ziar. tur bi naka la. Euh, Kumba Balde laa tudd. fay wootee nii. maa ngi wootee Dubaay. Dubaay waa kay Balde bismillah. waa kañ jërëjëf. Balde Balde. waa kañ. jërëjëf. Mhm. Mhm. maa ngi maa ngi woote di rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf Balde. Euh, dama lay ñaanal nag sëñ bi parce que du bëri des fois ñu leen di ñaanal mais dama lay ñaanal ci barke Seydina Mohamed ci li ngay def ci lu rafet. man c'est la première fois may woote sama giiru dundu ci télé. Mm-hmm. mais kontaan naa ci li ngay def torop torop torop torop torop yal na la yàlla fay. amiin Balde amiin. yàlla muy am fay yal na la yàlla fay li ngeen di def di ñu yee ci suñu diine di ñu jàngal ci suñu diine rafet na. alhamdulilah ñu koy rafetloo. waaw dama lay euh, paas sama yaay moom tamit. Mhm. xam naa ne sa bàjjan lay war a doon moom ànd la sant. ah sama mi ngi dëkk ci Pout. donc euh, dama la koy paas te xam naa ne tamit am nga soxna bu dëkk Toulouse man Toulouse laa dëkkoon bala may ñëw Dubaay. dëgg donc loolu yëpp day tax mu gën a def ma sopp la dama lay ñaanal nag ci barke Seydina Mohamed yal na sa taxawaay yàgg ci tele bi. amiin amiin di nga ñuy yee ci sunu diine yal na la ko yàlla fay. amiin Balde amiin barke Seydina Mohamed mi nga xamante ne. moom nga ñuy yeewee moom nga ñuy waxtaanee waa kañ jërëjëf. xaaral yal na yàlla kontaan. amiin salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Badiane waa kay aan ñu ngi lay ziar. an maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar. jërëjëf jërëjëf an man euh, xëy na euh, miinante bi moo amul wante gisante nañu si conférence bu Modou Pouy moo ma joxoon sa numéro. ah Modou Pouy waaw sama xarit ca Pout. mas naa laa woo. dëgg la dëgg la an yal na yàlla kontaan. man tuut laa dëkk. alhamdulilah amiin damaa ñëw ni Dubaay rek gane si sama doom bi. ndeysaan xam naa ne euh, Sénégal laay waree bu ma ñëwee dinaa la woo. nga woo ma waa kay an incha allah. jërëjëf an yal na yàlla yàggal taxawaay bi. amiin an amiin amiin yàlla may wir may la gudd fan. amiin an yàgg euh, Maodo moomu ngeen dendal. jërëjëf Haj Malick waaw. sama turandoo sëriñ la ndax man Maodo ma Abdou moo ma est-ce que ndeysaan jërëjëf an kontaan nañu torop nag kontaan jërëjëf jërëjëf yal na la yàlla yee amiin bi amiin lu Maodo moomu seen waxtaan bi neex na torop ndax ci yàlla rek ak yonent bi ngeen di won nit mm-hmm. yàlla mi aar yal nañu yàlla boole aar nga tudd Pape Kumba Aan man ma tudd Abi Kumba Aan ah, macha allah wallaahi jërëjëf an kontaan nañu wallaay kontaan nañu ñu ngi nuyu waa Dubaay yëpp dinañ ko dégg incha allah aan jërëjëf aan mi noonu soppi Sidina Mouhamed yaa ngoog nu ngi leen di ñaanal yal na yàlla defar sunu mbiru adduna waaye itam yàlla defar sunu mbiru alaxira ci darajey Sidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaw laa sana am na keneen waaw asalaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah sëriñ bi nu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi ziare. ñu ngi dellu ziar tur bi naka la. na tur bi muy ndongali Sidi Mbaye Peex. Sidi Mbaye Peex. waaw di rek ci Ablaye Mbaye Peex. ah macha allah fay wootee nii. waaw man maa ngi Italie. yaa ngi Italie waa kay Mbaye. waaw maa ngi leen di ziar ci leen di ñaanal. jërëjëf jërëjëf. ndeysaan mi ngi noonu xaj sii di ñu koy nuyu baax a baax nuyu suñu baal xaj mbay peex moom itam nuyu waa peex yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaj Malick mm-hmm. doon mm-hmm. jamono moo nekkoon buur bi waaw nekkoon général bi moom yonent nekkoon docteur bi sallallahu alayhi ñëpp daraja mm-hmm. waaye ëpp leen kersa yit nag salaamaaleykum ëpp ñëpp daraja mm-hmm. salaamaaleykum ah, dem na xam naa dina ñëwaat waaye ëpp leen kersa mm-hmm. jëmmul xayaa yi mm-hmm. famal azraau tudrikuhu fii qidriha wa umumul barri fii zamami allahu akbar mu ni Seydina Muhammad sama Maodo sallallahu alayhi wa sallam mu ni jëmmul xayaa yi ku bari kersa la bari woon kersa la moom Seydina Muhammad mu ëpp kersa ñëpp mm-hmm. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah saaf am bismillah yaa ma ngi wax ak man bi soxna Ndaata Dieng kii laase na waxal am mu yokkal ma fii soxna Ndaata Dieng waa kay Diagne fooy wootee nii. maa ngi wootee Touba. Touba waaw wàññi télé bi wàññi télé bi waaw. wàññi télé bi. Touba laay wootee. waa kay Diagne naka waa Touba. waaw wàññi nañ ko. yow bul déglu télé bi ñoo kontaan ci émission bi. jërëjëf jërëjëf. kontaan bi lool. jërëjëf Dieng. bëgg la tamit di sa soppe. jërëjëf waaj nañu wàññi télé bi bul déglu télé bi ah bu ko déglu. waaw dégluwuma ko. waaw bismillah bismillah. bëgg la di sa soppe. jërëjëf Dieng jërëjëf. bëgg Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. bëgg la tamit ngir yeegin ci yeegin ñoo xam ne tey ñu ak ñu ciy yee. jërëjëf jërëjëf Dieng. ba nga xam ne lépp loo xam ne réeroon nañu ci rek. gindiku nañ ci ngir sa jëmm. alhamdulilah alhamdulilah. heure ñu xëyee duñu ko tardé. heure bu ñu xëyee ñu ngi koy déglu ñun ak suñu waa kër ñëpp. ndeysaan ndeysaan. ñoo ngi lay ñaanal ci jëmi Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. yeete gi nga xamante ne yaa ngi ciy yee nit ñi ba dugalee seen xol yi ba bëgg bu ko bëggoon yokk ko ngir sa jëmm yal na la Seydina Muhammad taxawaloo. amiin allahumma amiin jàng amiin ñoo ngi lay ñaanal di ñaanal bépp jullit nag. amiin jàng amiin. ñaanal suñu bopp di ñaanal dëkkandoo yëpp yal nañu yàlla gën a xiir ci Seydina Muhammad. gën a xiir ci Seydina Mohamed ak képp ko ko réere nag jërëjëf jërëjëf ndax yaakaar naa bañ amu fi ña réeree am wallahi wallahi waaye képp ko lay déglu rek dina gindi ko jërëjëf Dieng ñoo ngi sant bu baax nag di gërëm kontaan rek mosuma woote télé waaye yaa ma tax a woote ku ne mbëgg ko nag tey la ko yàlla dogal ndeysaan ndeysaan ndeysaan kontaan waaye daal man daal ñaan laa am ak xol bu sedd kontaan nañu ñoo ngi lay ñaanal sa taxawaay yàlla na gën a yàgg jërëjëf Dieng jërëjëf nga bëgg yaa ko xam yàlla na amin amin ñu kontaan nañ wallahi wallahi ñoo gën a bég ñoo gën a bég yal na yàlla yal na yàlla yokku la dëgëral yow itam yàlla yàlla sàmm kóllëre gi ci darajey sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi noonu soppe sidina Muhammad yaa ngoog incha allahu taala ñu ngi leen di xaar waxoon nañ leen ni dara du leen ump euh, lépp lu ñu xam ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñëw wax leen ko ndax waxoon naa léegi ni la fii yaa ngi diglu ay waxam yaa gën a yaa gën a tedd ku dul yow fii yaa ngi toog di ko bëggee moom Seydina Muhammad yaa ëpp leer ku dul yow fii yaa ngi jëfandikoo ay jikkoom yaa gën a baax ku dul yow mara yonent bi alayhi salaatu wasalaam la muy ki ki euh, jànq bi nga xam ni jànq bi nga xam ni euh, ne muy amee kersa rasul a ko ëpp maa ngi nuyu waa Tuubaa yëpp waaw di nuyu soxna may may galas soppe Sidina Mohamed boobu nga xam ne du rate émission bi maa koy nuyu nuyu Serigne Abdoul Karim Mbacke borom makarimal axlaax Serigne Bassirou Abdoul Khadir Serigne Galas Kaltoum ñoom ñëpp ak njabootu Cheikh El Khadim gépp nuyu Serigne Moustapha Mbacke Serigne Moustapha Baara sunu soppe boobule njabootu Cheikh El Khadim gépp nu ngi leen di nuyu nuyu waa Touba gépp sëñ Thierno Mbacke ba sëñ Mor Doj moom itam ñu ngi koy nuyu ñaanal ko yàlla na ko yàlla yokk dëgëral ci daraje yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa mal azraau tudrikuhu mu ni fa mal azraau déet jànq xéeg xéeg tudrikuhu di dab rasulullahi ci kersa ga salaamaaleykum aleykum salaam bismillah sa fat an waaw ñu ngi lay nuyu soxna nga def aan alhamdulilah nga def ak coono sant bu baax sant tur bi kaltom waad ah kaltom waad jawaar dégguma Kaltoum Wade Jawaar. Kaltoum Wade. waaw waa kay Wade bisimilah bisimilah Wade. def aan aan alhamdulilah alhamdulilah. sant rek. jërëjëf jërëjëf Wade. di la ñaanal yàlla gudd fan. amin amin ñu bokk. ak wér amin Wade amin ak tur Seydina Mouhamed rek la nu moom la bëgg sa yaa na fi yee. amin allahumma jërëjëf Wade. yaa ngi si yee suba suñu xëyee di la seetaan aan jërëjëf jërëjëf waat yal na la yàlla may wér nag ak gudd fan amiin amiin Wade ak jàmm ak salaam yàlla xam na ne fan yëpp maa ngi bëgg dugg si émission bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan euh, Pape Cheikh Diallo nee ko waxal ma ko ne ko mhm. boobu ba tey maa ngi woote guddi gu ne maa ngi woote pour dugg si moom pour rek am ci béyu màkk yi ndeysaan ndeysaan yàlla baax ndax xeet ci Seydina Mouhamed rek sallallahu alayhi wa sallam jàppale ma si nag Pape Hann. mi ngi lay dégg Pape bu baax. mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg del woote rek yàlla baax na. del woote rek doole del woote moom moom moom woote ba boo ci jotee rek incha allahu taala eh, yàlla moom ku mu woo ko waaye wooteem ba moom borom bi subhanahu wa taala boo ca jotee rek incha allahu taala di nga di nga di nga aji màkk léegi kon ñaanal ñi demagul yàlla ñu dem ñi dem ba nopp yàlla nañu dellu. ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa sana am na ku la ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Aan. la béykat kooku. man Cheikh Tidiane. ah. Cheikh Tidiane Diagne. Cheikh Tidiane Diagne fay wootee nii. Ah, ci Ndakaaru. Ndakaaru waa kay Diagne Diagne bisimilah. waaw ah, man dama bokk ci ñi la soppate yàlla tax. alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Diagne. waaye dafa am loo xam ne. dama ne woon rek danaa ci joxe sama opinion. waaw bismillah. Uh-huh. moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax noonu ni muhammad uh-huh. alladi ma wulida qattu misluhu fi lwujud wala yujadu misluhu fi lwujud iwadun uh-huh. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maasum la maasum yee nag boo ko ci anbiya ak xam duñu seen xel seen jëmm seen lépp amul dara loo xam ne dafa ayib ci ñoom. Mhm. ba tax naa euh, am na ku ñuy wax Moustapha Guèye El Hadj Moustapha bu télévision euh, moo sa benn livre. Mhm. di corriger israéliyaat yi nga xam ni. dugg na Sénégal yi Ibni Isham yi Tabarani nu wax ko ci yonent bi te xam ni yooyu wérul te dafa indi moo bëggoon ci attirer sa attention rek ndax yow nit ku baax nga boo xam ni vraiment eh, yow ku la déglu dina bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku ku yóbbu jox la njukkal ci loolu mm-hmm. bi nga xam ne dégg naa ko sànq ci télévision mm-hmm. wax ni Jibril opéré na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dindi ci moom lu ñuul loo xam xol bi lu ñuul loolu teg ko dugg na fi génn fi mm-hmm. loolu dafa bokk ci nga xam ni awliya yi euh, wax nañu ci Euh, euh, wax ni israéliyaat la moytu ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo posé benn question bu fekkee ni anbiya ak mursal yëpp mooy seen sang moo leen gën yàlla ne ko ma maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin wa maa arsalnaaka illaa kaaffatan lin naas uh-huh. waxaar ko ni uswatu xasana moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi toog yonent yëpp taxaw ñoom kenn opéré leen ñoom nu jël yonent bi dindi ci moom lu bon kon dafay poser question boo xam ni mooy yonent bi kon avant nous opérer ko xanaa loolu dafa nekkoon ci moom kon loolu moo di yonent bi opération bi demeewul ni ko nit ñi njorte ndax mbir mi euh, awliya yi wax nañ ci dafa di juróomi façon opéré la du opéré yi nga gis ni yonent mosu am lu bon ba nuy dindi ci moom lu bon mosu ko am la laa fii dunya wala fii axira ndax mooy modèle bi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam ci la yàlla binde lépp mooy ci zultu ci yonent sallallahu alayhi wa sallam moom la mooy sangul lépp moom nuru wul dara te dara nuruwu ko comme ni koy waxee yow ni ko baaxee ndax yonentu yàlla bu mag da pour nit ñi jàpp ni yonent kenn mosu koo opéré bay din ci moom lu ñuul te lool bu ko ñu ñi déggee ñu yaakaar ne yonent bi kon avant opération bi lu ñuul lool mi ngi woon ci moom yonent lu lu ay ay mosul nekk ci moom yonent amul woon taqandeer sallallahu alayhi wa sallam yonent daawul tëfli sallallahu alayhi wa yu bëri nit ñaa ngi ko ci télévision léegi noonu ci moytu da ko wax ci yonent bi. baarakallah baarakallah jaay euh, Baye Sama Tidiane allo euh, coupé na jërëjëf yal na yàlla gën a yokk xam-xam bi yàlla gën a barkeel xam-xam bi ci darajay Sidina Muhammad waaye tamit kenn musul koo def loolu euh, nu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk la dëgëral waaye wax ji ñu wax bu Bousayri wax na ko. ne euh, moom moom ni ko mag ñi bindee rek noonu lañ ko waxe waaw euh, xotti nañu dënd ba dina ca suq an sadrihi waaw wa uxrija minhu waaw mudghatun te te bu sayri nitu yàlla la boo xam ni euh, ku fe ku seex Seydil Hadji Malick fonk la waaw lii ma wax it Seydil Hadji Malick wax na ko wax na ko ne yàlla yàlla xottil na ko xaral na ko weer wa waaye jazaan li xalbihi waaw xar ga mu faroon rek da koo fayee xotti ga mu xotti woon xol ba waaye nag lii nga wax baay yonentu bi moom loo wax ci moom rek loo wax ci moom ci lu baax rek moom moom moom tagg la moom la kon lii nga wax lépp tagg tagg la ca moom yal na yàlla gën la barkeel jaañ kontaan nañ salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah bismillah ziar de ñu ngi dellu ziar jërëjëf bi naka la Adama Ndiaye waa kay njaay Ndiaye Ndiaye jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye fooy wootee nii. maa kontaan nañu. na jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu. waa kay jërëjëf arab bu paas la sama waay. waa kay Ndiaye Ndiaye jërëjëf Ndiaye. salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay delloo ziar sëriñ bi tur euh, amadu Amadou Si. Amadou. Si. si si. si si si si. waaw Si tamit. jërëjëf si. waaw kay soppi dëgg yàlla moom bu ñu taalee télé bi yem ci si wax dëgg yàlla isa bi Seydina Muhammad lañ ko wér. sallallahu si jërëjëf jërëjëf si. amiin si amiin si jërëjëf si. kontaan nañu bu baax a baax a baax. jërëjëf si jërëjëf si. bég nanu bég nanu. barakallahu euh, Baye Suma Tidiane xam naa euh, xotti xol googu moom buñ ci doon fanaan buñ ci doon nekk danañ ci fanaan. waaye nag yonent bi moom loo wax ci moom ci lu baax. waaw yayoon na ko. Mhm. waaye nag euh, ah. ñun daal jàng nañu ni xotti nañu dënd ba. Ah, loolu daal loolu daal la ñu jàng. Pape ñu euh, bàyyi xel ne mhm. sot xottiwuñ ko génne ci lu bon. ndax mhm. amul lu bon amul lu bon. waaye waral tâche tâche yu ñuul de sa ne. lañ génnee ci moom. déedéet moom sax xam nga fi ma fi ma waxee sax bu ma déglu woon. waaw nee naa lumb boobu bu ñu ko jëloon. waaw teg ko ci balance. kay àdduna bi yëpp ñu jël seen xol. loolu laa bëggoon wax mooy ñi baax ak ñëpp. teg ko ci ah. balance. lumb boobu dina ko wat. kon foofu da ngay déggee ni ma waxee rek mooy waxuma ni yonent bi am na lu bon du ma ko wax mukk insha allah taala amul lu bon waaye nag nit la muhammadun mm-hmm. basharun mm-hmm. laa kal bashar mm-hmm. waaw koo xam ni booy lim say mbokk boole ko ci boo koo xam ni booy lim nit ñi boole ko ci dëgg la kon nit la moo moo euh, bal huwa kal yaqutati bayna alxajari bokk la nit ñi nag waaw moo tax yàlla waxoon ko ni ko euh, li nga wuuteeg ñoom rek mooy dama la wax yu may nit nga waaw waaye waxa illee loolu moom yonent bi ko wax. waaw yàllaa ko wax Seydina Muhammad. waaw waaw waaw nit nga lii la wuuteeg nit ñi. mooy dañ may wax yu dañ may dañ may wax yu. waaw waaw moo la wuutee ak nit ñi salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. allo. allo soxna si nu ngi lay nuyu. allo. salaamaaleykum maa ngi dégg soxna si. waaleykum salaam. alaaji Papa An. la béy kii kooku. aji Marème Samb Tëngéej. waa kay Samb Samb Samb. sa soppe la. jërëjëf Samb jërëjëf. soppe aji Fat Bintu. yéen ñaar laay déggee Seyda dëgg la jërëjëf jërëjëf. maa ngi lay ñaanal yàlla di participer si émission bi. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral kàddu gi. amiin amiin amiin dañu lay bëgg fajar gu jot ñu ngi toog di la déglu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. bu ñu xëddee ba pare daal nu ñu yàkkamti toog jàkkaarloog télé bi di xaar sa émission bi. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi lay bëgg bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla wéral cër yi. yàlla yokk baat bi wéral baat bi. bàyyi la suñu kanam. yaa sëriñ kii boobu nga toogal. jërëjëf mm-hmm. jërëjëf toujours daal yéen la nuy bége. sa soppe laa nag boo xamul boo xamante ne toujours maa ngi lay bége. jërëjëf yàlla xam na que ma yaag aji faat bintu. maa ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér. amiin yaa ñaanal loo man ren man ko déwén yàlla na yàlla yàlla na la ko yàlla yokkal. toujours daal ñun ñoo ngi lay bége. jërëjëf yaa ngi ñuy yokk xam-xam yaa ngi ñuy yee yaa ngi ñuy ginni. jërëjëf jërëjëf yàlla na gis euh, émission bi. amiin na yàlla yàlla kontaan ni nu kontaane jërëjëf jërëjëf Samb ngi lay ñaanal yàlla jërëjëf Samb kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf Aan jërëjëf maa ngi nuyu waa Tëngéej yëpp jërëjëf mi noonu soppe si jëna Mouhamed Yango Pape Seydi Hadj dafay wax ci benn bayit mhm. li ummihi aama xamsin mhm. rudda sayiduna mhm. karaddihi qablu xiina shaqi waaw min za ami ah, waaw loolu tamit xam naa bu subaa boo ñëwee incha allah incha allahu taala nga leeral ko waaye nag waaye nag sama tijaan yi moom dafa xéer boo xéeree ci moom rek mm-hmm, mm-hmm. Euh, boo déggee benn kàddu mën na la tiital waaye nag nit la nit la moom yonent bi alayhi salatu wasalaam parce que bu nekkuloon nag nit yàlla du ne ko baal naa la sa bàkkaar dëgg la yi fi ne mm-hmm. ak yi weesu ak yi bëgg ñëw wallaahi ndax nit la dëgg la inna fatahnaa laka fathan mubiinan mubiinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma taaxara kon nit la moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye bokkul ak nit ñi déedéet man daan wax ni lastum ka kii man du ma yéen mhm. waaw man du ma yéen bokk ak nit ñi mhm. moom Seydina Muhammad mhm. waaye xëy na euh, nit ku ne euh, mën nañoo kon euh, loolu mag ñi wax yàlla wax ko mën nañ ko fiire prime zahir ñun moom nag li mu wax prime baatin la lu mu yëg ci biir xolam dëgg la waaye yonent bi moom daram ñaawul déedéet war a boo déggee Baye Sima Tidiane boo déggee la mu wax bu ñu xottee xol ba it lumb boobu bu ñu ko tegoon ci balance jël ñi baax ñépp lumb boobu wat leen kon kay loolu <laughs> tabaarakallah tabaarakallah loo xam ne nit yàlla yi mosuñu koo kii est-ce que est-ce que bismillah salaamaaleykum hmm? asalaamaaleykum hmm, la béyki kooku eh, madame Diaby depuis Paris madame Diaby ñu ngi lay nuyu maa ngi ziar ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax na ngeen def naka waa Paris hmm. ñun ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah jërëjëf jërëjëf bismillah bismillah oustaz waaw man dafa am question bu ma la bëgg a laaj daal. bismillah. parce que daf ma sonal. Mm-hmm. waaw. dama mës a seetaan TFM. Mm-hmm. gis laa yéen ni ñuy wax à propos de leur euh, seen sëriñ bi daal. waaw. sëriñ bi naan xaw ma ñoom ñu koy comparé sëriñ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. voilà léegi man nag loolu nag moo may sonal daal. Mm-hmm. moo tëddee moo jógee yëpp ma koy xalaat. waaw est-ce que c'est normal. waaw. ñu jël seen sëriñ teg ko à la place du Seydina Mohamed xaw ma si j'ai mal compris ou pa mhm. nga baal ma nag ci olof bi seddu kii wul noonu. trop waaw waaw dëgg la dëgg la mais est-ce que ñuy comparer. Mhm. seen kooku nit ku mag la liggéey na yàlla defal na yàlla moo ko am na ay waliw. ci mhm. dëkk yi partout am na ay waliw. mais est-ce normal ñu jël waliw di leen comparer ak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. déedéet ñoom comparé wuñu ñoom. voilà wu ñu de. comparé wuñu ou bien j'ai loolu laa waaw kay waaw baax na baax na jërëjëf. voilà jërëjëf jërëjëf. jërëjëf <laughs> de moom moom xam naa dafa déggul dafa déggul bu baax ñoom comparer wuñu. comparé wuñu mhm. euh, dañu dañu ni rek euh, ka weexoon. Mhm. moo ñuul. Mhm. waaw yonentu ba dem demoon moo dellusi. waaw loolu la ma waa kër maam Limaamu Laahi yëpp ak soppe Sidina Muhammad di wax waaye ñoom waa kër maam Limaamu Laahi ñoom duñu comparé kenn. waaw wala du limaamulaahi euh, alayhi salaam euh, yàlla ay mbi ay mayam ak ay mbiram mhm. moo koy moo koy dugal fu ko soob mhm. ak nu mu ko neexee mhm. te it Haj Malick am na loo xam ne nag boo bëggee lu la leer dëgg nag soxna si euh, comme nga mën a dégg lu leer rek daggal biyee nag ñëw ba fii jàkkaarloog Ibou Seyni mbaa Cheikh Mbacke mbaa kenn ci njaboot maam Limaamulaahi ñoom dinañ la tegal argument yoo xam ne mhm. diñ ci mën a comprendre lu bari mhm. benn nag la la la la Seydi El Hadji waxoon ni tarixa bii day mhm. benn problème mooy fa man sha fal yumin wa man sha ankara bu la soobee nga gëm bu la soobee nga weddi mais yàlla magasinam ba du jeex te it nag yàlla ay mbiram kenn xamul fu mu ne dañu koy defal li mu bëgg rek moom borom bi subhanahu wa taala waaye nu ngi ñaanal njabootu maam Limaamu Laay gépp ak ëttu këri diine ji nga xam ni euh, ku ci xewle di nga ni l'islam bi man li ma ci yittee rek mooy l'islam bi nga xam ne mi ngi am. allo salaamaaleykum. bisimilah. waaw allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na man la waaw. sëñ bi ñu ngi lay fay ñu lay fay tur bi naka la. soxna Ndaway Ndiaye. waa kay Ndiaye fooy wootee Ndiaye Ndiaye. waa kay Ndiaye naka waa Touba. ñu ngi jërëjëf jërëjëf Ndiaye. soxna Noé Ndiaye. kay Ndiaye bisimilah maa ngi lay dégg waaw. man dafa soppee laa Touba laa dëkk. waaw kay nag bi neex na. jërëjëf Ndiaye naka waa Touba. jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Ndiaye. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. kontaan nañ bu baax a baax a baax duma ko tardé chaque jour moom laay dégg. kontaan nañ bu baax a baax a baax kontaan nañ jërëjëf jërëjëf mbokk mii noonu soppay Sidina Muhammad yaa ngoo ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral euh, ñaan borom bi subhanahu wa taala maam Ablaye Kebe maa ngi koy nuyu Laay Maxtaar Alassane ak Seyni sama xarit boobu boobule ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla yokku dëgëral soxna yaa Faati Caw Laay moom itam soppay Sidina Muhammad boobu euh, nuyu ko moom itam ziar ko soxna umul xayri si da baax maa ngi koy nuyu soxna Aida si da baax soxna Faat si da baax soxna Mintu soxna laal la ñoom ñëpp soppi Seydina Muhammad yooyu njabootu Seydil Hadj Malick googu yal na yàlla yokk leen dëgëral ci dara amiin yaa rabbal alamin salaam Hadj Malick bàyyi la nga tàggoo ah waaw Oustaz Pape jërëjëfati mhm. yal na yàlla ñu yal nañu yàlla may noppi dégg mhm. ak topp ci bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee kon ñu nuyuwaat bu baax rek téléspectateurs yëpp di nuyu suñu kilifa sëñ Mansour Dieng ak suñu yaay ji si kër Hadja Penda Dieng ak suñu frères yeeg suñu sœurs yëpp ñoom mhm. sëñ Babacar ñu amit Tidiane ak euh, Ibrahim sa sa soppe nee na ma tàggul la ko mu ngi doon di ci yoonu màkka tabarakallahu ànd ak gars yi umra di nuyu ñëpp am benn uh, suñu mbokk bu nekk zone A suñu mm-hmm. Mm-hmm. jatu uh, di doom ci aji mareem waaw nee na sa soppe la da lay seetaan bis bu nekk mm-hmm. ne woon naa ko nag su ma ñëwee dinaa jotal yóbbante kër ma jabel ba kër ma jabel na ndaw su ma fa woo démb ne ma dañuy xëy bu ñu xëddee ba pare du ñu tëddaat ñoom mbooloo la ñu dañuy toog seetaan ba noppi ba lépp noppi ñu doog a doog a tëdd wax dëgg yàlla nday mati ak nday faatu ak waa kër ma jabel yëpp mhm. pap ñu ngi lay ziar bu baax a baax baax baax nee nañu yóbbante nañu ay nuyo wax dëgg yàlla jotal naa nuyo yëpp tabaarakallaahu di nuyu sama goro Adja ak borom këram Abu Diop tabaarakallaahu di nuyu Mariama di nuyu ñëpp mhm. anta sa soppe mhm. tabaarakallaahu taala ñu ngi nuyu ñëpp daal di sant ñëpp xam naa ba suba ak jàmm insha allahu taala jërëjëf Haj Malick ba suba insha allahu taala mbokki yëpp nuyu euh, nañ suñu Alhaaji Moustapha moom itam ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ci xam-xamam bu rëy bu rafet ba mm-hmm. mbooleem euh, borom yi xam-xam yi ne ci biir réew mi Oustaz Alioune Sall sama xarit bi maa ngi koy nuyu oustaz eh, Iran Ndaw maa ngi koy nuyu tafsir Abdourahmane Chérif Mamine Haydara ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla yokk leen dëgëral oustaz Mara Fall Pape Samb alaaji Pape Samb al imam waaw da lay seetaan bu baax ku baax ak baax ak baax Pape Samb kooku xool bala yàlla baaxal dafa yónnee message saa su ne xool bala yàlla baaxal maa ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax mm, mm, mm. Eh, maa ngi nuyu Abdoulaye Diop ma nga Thiès maa ngi koy nuyu bu baax Mamadou Lamine Dramé ci 2S Mamadou Lamine Dramé sama xarit sama ah, mbokk la Lamine Dramé ah. bu 2S sama mbokk la waaye maa ngi nuyu Maodo Faye moo ma mm-hmm. njëkk a invité télé Hadj Malick Faye Maodo kay mu njëkk invité télévision ni ma waxtaan la ci yonent bi maa ngi koy bu baax sama xarit boobule yal na yàlla yokkulee dëgëral mm. laasana yal na yàlla fay la sa cofeel ci Seydina Mouhamed yal na ko yàlla gën euh, yal na yàlla barkeel leen soxna Yaasin mm-hmm. mbokk mi ngi noonu jox leen dig daje suba insha allahu taala ñaanal mboolem soppay Seydina Mouhamed yi yal na yàlla defar suñu mbiru àdduna defar suñu mbiru àllaaxira mm-hmm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah